asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ànd ak Touba Argentine TV ñu leen di nuyu bu baax yàlla na kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm di leen indil nag euh, nganuk sëriñ Habib Sy bu Serigne Mansour Sy di ambassade bu diaspora bi di liggéeykat ci diaspora bi di jàmbaar joo xam ni itam jàmbaar la ju fonk eh, diaspora bi ngan gi nag mi ko doon amal Argentine le 29 avril bi yamoo woon ak altene ginnaaw buñ ko dalalee ci le 28 bi dimanche fii ci réew mi tey nag ci altene ji daal di nay jàkkaarloo ak sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi yëpp mbooleem jullit yi ñu teew na ci ay julli sax nekk ay sénégalais ñëw nañu teewe ngan gu am solo gi muy nag lu am solo bis bi jëloon ko jagleel ko waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul te yaakaar naa ñoom teew nañu fi jàpp ci itam ci anam yépp wax dëgg yàlla ginnaaw bi nga xamee ni nag sëriñ bi dugg si na ci tant bi fekk fi mbokki jullit yi yépp fekk fi itam mbokki taalibe yi yépp ñu doon ko xaar ngir rekk taatan waxtaanam yu am solo yi nga xam ni dana jëm ci soññ mbokk yi ci seen diine ci seen lislaam waaye itam ci naka la ñuy jëflante ci seen àddina ba mu mën a jaglool ñu am ci ndimbal mu nekk kon lu am am solo ñëw na saafonte ak mbooloo mi nga xam ni itam mooy communication bu waa kër Maam Alxaaji Malick Si eh, di Sëriñ Babacar Sarr santé ko taxawaayu mbokk jullit yi ni ñu boole lépp mu nekk benn waaye itam di xàccandoo di dóorandoo naka lañu ñu nekk ci réew mi ginnaaw bi sëñ Mamadou Ba bi nga xam ni moom moo jiite daayira Mutahabina Fillahi ñoom itam yëkkati kàddu dalal ko yëkkati kàddu sant itam ñuy fexe ba bis bi jàkk Maam Mor Talla waaye lu ko jiitu sëriñ Gora Ngaay jëli naay kàddu dalal sëriñ bi daal di sàkku ñu jefal addee ju doon sëriñ sàmbu jàngkat bi waaye itam daal di itam fàttali sëriñ bi dëkk bi présente ko mbooloo mi ginnaaw bi sëñ Talla Sall jëwriñu fédération daayira Mouride moom it jël kàddu e, daldi sargal sëriñ bi dalal ko fàttali ko réew mi nekk nekkinu jullit yi bennoo gi ak lépp loo xam ne lu baax la rek mu wax ko ci kanam sëriñ bi Eh, ginnaaw bi nag sëriñ Saam Mbuub moom it xam ngeen ni fépp foo xam ni sëriñ bi mi ngi fay dem moom lay àndal ni ko suñu borom dimbali ci tagg yonente bi ci kullu koo xam ni mag ñi fi jaaroon la ca daan bind jël seen xalima yi jëmaloon ko ci tagg yonente bi waaye yëpp la man macha allah bu jëlee ci murit nga jàpp ni fii rek la xam tijaani la même moom itam waay na maa ngi ñaan ku mën a way rek nga aw pare eh, ñu daal di na kon diglu waxtaan ba am solo bi nga xam ne rek moom la sëriñ Habib si bu sëñ Mamadou Mansour daal di waxtaanee ci kanam mbooloo mi muy tukki bu ko neex neex it waa réew mi ndax xam ngeen ni am na lu mat ay ñeenti at yu ko yu fi ñëwul ndax eh, li fi jaaroon di mbas mi coronavirus bi kon ñu maase diglu sëñ Habib Sy bu sëñ Mamadou Mansour Sy ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di ñaan ngeen nangul ma sama ziyaar gaay nangul leen ma waay ñu nit nangul nañ leen yàlla nañu yàlla boole nangul di nuyu sunu imaam bi toog di imaam lii di ko ziyaara di ko ndokkeel di nuyu suñu ñaari jëwrin yii muy alxaaji mortaala si waaye te ngeen cee bàyyi si bi waay am déet ab càlleen moom doo koy jëwriñ ji rek ma ci jaaxal de waaye bu du woon ak loolu moom xam nga ab càlleen moom alxaaji mortaala sàll daal waaye mënu ngeen ma bàyyi ci sama sigi ak jawrin alxaaji Mouhamadou Ba ak seen kàng yi nga xam ni kenn ku ci nekk ñi ngi ci sa gannaaw buñ ci tuddee ñoom xaj Pap Samb xaj Alioune Ndiaye ñoom tabaarakallahu sunu ki nu amul lu dul moom Mouhamadul Amin coordonnateur ak mbooleem daaira yi nga xam ni ñi ngi jóge ci fu ne ngir yàlla ak bés bi ak fédération bi di nuyu waa daairatu miftaaxu nasr bi nga xam ni ñoom ñoom moom bésu tey bii miftaaxu nasr nag li ñuy tuddee composé la ci lang tubaab miftaaxu nasr ñu ndokkeel leen ndokkeel daayira maam jaara buso bi nga xam ni ñooy cheikhu daairatu rahmati ñu ndokkeel leen ñoom itam nuyu mboolem sénégalais rek tout boo xam ne yaa ngi ci biir dëkk bii di Argentine di leen ndokkeel ci bésu tey bi ak weer bi ak weer bi ñu génn di nuyu Baye Ibrahima Diagne ndokkeel leen indi leen ndokkeelu Sénégal yépp rawatina ëttu këru diine yépp dale ko ci Tiwaawan woy jur wa sang ba xalif général di Tiijaan waaye indaale it waajur ba xalif de Mouride indi leen suñu kër maam raan xalifa nuyoo xalifa yi ca kawlax yépp indi leen bu cana ba indi leen bu njaasaan indi leen itam bu sunu sëriñ kër Cheikh Omar Fuutiyu tabaarakallahu nga xam ni ñoom ñooy sëriñu Seydil Xaaji Malik Cerno Bachir ak njabootam yu tedd ya Cerno e, Madani ak seeni rak indi rek nuyoo këru diine yépp waaye indi nuyoo Sénégal yépp moo xam ngay jullit wala doo jullit ñu wax alhamdulillahi bi nu yàlla mayee ñu teewaat ko ren kenn ku nekk ci saal bi na wax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañ ko teewee na gën déwén te déwén dàqal ñu ren su na mee yàlla mel na ren yi fi jaar bare na du jeex nit doomu aadama moo dul doyal mukk moo dul doyal mukk moo tax yàlla ni wa qalilun min ibadiya shakur dama masalaaj sama baay bi mu ñuy jàngal di firi alquran ci alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wisraka alladi anqada dahrak wa rafana laka dikrak fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusra fa ida faragta fansab wa ila rabbika fargab ma ni ko lu tax yàlla tanwin lu tax yàlla taara def liif ak laam usru yusru defu ci liif ak laam inna maal usri yusran usru ak yusru mu jël bii def ci liif ak laam bii defu ci liif ak laam luy sabab bi mu ni ma doom doomu aadama moo mel noonu ci at mi yàlla daf koy xéewale mu takk soxna am kër am oto dem makk am xéewal yu bare ci at mi benn nattoo ko ciy dal benn bu ndaw bu sew bu tuuti mu di ko fàttaliku ba déwén fàtte yépp yu ñu ko xéewale benn natt moo koy dal mu fàtte xéewal yi ko yàlla joxoon yépp ren ba déwén cay sama mbir ma ba ma dalee doomu aadama moo bindoo noonu waaye bés bu nekk nit gis lu tax mu war a sant yàlla ba fàtte mettit ya ko yàllay teg dama jaar Brésil ma fekk fa benn nattu drame bu metti muy suñu benn mbokku sénégalais ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana ñu di ko wax Talla mbay parce que dee moo ko fendi ñëwul woon pour jël si fii ruuxam dee siwul woon ni ñépp la doon def si daan si dooleem wut waaye gis nga yàlla su ba mu bindee ni Brésil lay génne àdduna ca la fexe ba tegal ko condition yépp mu ñëw Brésil pour mu mën koo faat maa ngi leen koy nettaliwaat yonte yàlla Suleymaan dafa mas a toog ci saal bu mel nii jékki-jékki rek benn gan dugg si ci biir saal bi nuyoo rek dugg toog bi mu toogee lan moo doon itteem bëtam yépp dafa xool benn waay rekk la doon observé ci biir saal bi di ko xool waa ji bu nee nii rek gis gan gi di ko xool rek yaramam di daw bu nee nii rek gan gi di ko xool mu fixé ko rekk teggeetul bëtam ci moom ba mujj gan gi dugg si woon jóg génnaat bi mu génnee kamu doon xool xuus ba ci yont yàlla suleymaan ni ko sang bi sa gan gii fi dugg si woon léegi kii kana ak mën a xool kii de daf ma xool ba sama yaram yi di daw mu kii kumu mu ne ko malakul mawti la mu ne ko ah, pexe jeex na parce que malakul mawti ku mu xool xelam ak ci yow te bëggaguma faatu mu ne ko nu ñuy def mu ni ko boole maa ngelaw ndax yow yàlla jox na la ngelaw tàggatal la ko ba loo ci bëgg a def def ko wali suleymaan a reexa xuduwaha shahrun wa rawaxuha shahr xam nga lu ko ko may jaayanteeg bakkanam ngir waxtu yàlla moo tax beneen affaire a ngoo yontu yàlla suleymaan dafa amoon élevage fas yéeg yépp mu amoon benn waxtu ci lay dem xool leen mooy waxtu tàkku tàkkusaan nekk ca élevage ba mu yàgg ndekete heure bi mu daan jaamu yàlla di ci julli heure ba paase na ndax ci li mu nekkoon bi mu xoolee gis ni heure ba mu daan julli paase na mu rey élevage yépp ba mu des benn benn booba jaamam moo ko denc pour bañoon mu rey ko benn ba mu ca dese woon moo jur fasu élevage yëpp ngay gis ci àdduna bi mu ni li dox sama digganteeg li taxoon may jaamu yàlla ba jaamuwuma yàlla ci waxtu wu ma ko daan def lépp laay faat bu bu ëllëgee duma ko tax du ma taxaleeg loola daldi rey yépp yàlla ni ko yow sa économie yépp nga yàq ngir man ngir sa sama sama julli man tam li taxoon nga ko daan doye mooy nga di ci tukki ak di ci dox soxla danaa la ko fay ngelaw ngelaw a gën a gaaw fas kun lii kama urit ak kun la ka kama ku def ku yàlla nee na ku def ni ma ko bëggee ma defal la ni nga ko bëggee la ci taabal bi ah ñu xëcc ko léegi nag xëcc ko da ngeen déglu ma ak xel bàyyi dox beek jaabante beek séddale beeg est-ce que xam nga ni fii moom ku fi ñëw du ay caaxaande xam nga ñaata waxtu la ñëw ba Brésil fukki waxtu ñaar ngay def juróom-ñetti waxtu la ñu def euh, escale quatre heures de vol la ñu def diggante Sénégal ak Madrid def juróom-ñetti waxtu escale def fukki waxtook ñaar mu nekk vingt quatre heures nga agsi aéroport gars yi war laa jël yóbbu la ca saal ba tey ba deux heures du matin trois heures nga xëy muy seen programme nga jóge fa xaaju guddi fajar nga départ wut si Argentine am déet kon nag bu picc yëngu fu ma yemoon dégluwu leen ma de paase woon naa Souleymane de paase naa ngelaw li de waaw kay dama ni kun lii kama urit ak kun laka kama turit yàlla nee na ku def ni ma ko bëggee ma defal la ni nga ko bëggee wala déet dinaa ci ñëw ca kanam mais ma àggale xisawu yonte yàlla suleymaan bii yonte yàlla suleymaan ni waa ji léegi lan nga bëgg mu ni ko dama bëgg nga rawale ma bëti malakul mawti mu mel ne ñi ngi Sénégal mu ni ko rawale ma ma daw dem São Paulo moo gën a sore ngelaw ni caswaa ji yanu indi São Paulo juróomi minit malakul mawti dugg si waat bi mu duggee yontu yàlla Suleymaan ni ko ñëwal kaay mu agsi nuyoon teg moom mu ni ko bi nga fi ñëwee sànq sama gan gi nga doon xool ba mu tiit lu ko waraloon mu ne ko yàllaa ma waxoon naa jël si ruuxam tegal ma ci ni ma bul ko jël six heures moins quart wala six heures et nanga ko jël six heures et quart pile ida jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun nee na waaye li ma jaaxal ba tax ma génn mu ni ko yàlla daf may bul ko jëlee senegal na nga ko jëlee São Paulo mu ni ma xool sama montre mu nekk 6 heures moins le quart ma ni waa ji ban moyen de transport la mën a jógee Sénégal dem São Paulo te 6 heures du passé te yàlla nee na ma bu 6 heures di passé rek ma lay ma lay ma lay dindi la say fonction mu ni ko léegi nag mu ni ko damaa gis ngelaw li yàlla ko rek di yóbbu xaw ma fu mu jëm ma topp ko ndax maa ngi doon bëgg a communiquer ak sama borom pour laaj ko ban xalaat laa mën a defaat. bi ma gisee ngelaw li di ko yenu di yóbbu ma ni naa ko topp ba xam fu mu jëm ndekke boobu mu nga jëm São Paulo dafay dugg São Paulo 6 di jot ma jël ruuxam mu ni ko nga ni mu ni ko yàgg na yow rek laa jotul woon nuyu ma ñëw naa la nuyu si waaye kee moom pare naa ci moom qul inna al mawta alladi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun kenn du ko rëcc kenn du ko rëcc ku jaamuwul yàlla da ngay perte sa maam Sidi Xaj Maalik radiallahu anhu nee na araaka nasiita almawt fal mawtu mawdidun fa lil kulli min baxri almamaati nasiibu ala kullu mawluudin wa in taala umruhu sa yadcuuhu daaciihu lkatin wa yujiibu ala kulli mawludin fala shakka annahu yusallimuhu yaadal xabibu shuubu kon wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna fa inna mugaabati al umuuri taxiibu moo tax dee leen dalal seen xel seen digganteeg seen boroom gis nga nit sa digganteeg sa boroom doo ci ñaw njort ba mu ëpp baaxul de ci rafet njort foo toll damay wax ak sama doom ma nga France di jàng mu gis ni dama am ay programme ca Paris ak ca France mu may defal benn calcul maanaam dafa bëgg wax ni heure bi nga xam ni ci lay jël vacances heure boobu laa war a dellu man Sénégal mu may natt nag pour su delloo ba pour ma ànd ak moom muy wax ak man démb nag mu ni ma papa imagine toi rek li may xalaat nii sax ma ne ko looy xalaat ma loolu dafa garaaw sax ma ni ko Zahra wax rek yow looy looy xalaat mu ni ma xam nga maa ngi ci examen yi ma ni ko waaw mu ma loolu ñëwee ko sax wax ma ni ko xam naa li ngay bëgg a wax dangay xalaat ni boo examen te admis woo donc calcul bi ngay def pour ànd ak man du am parce que da ngay war a reprendre octobre donc dootoo dem Sénégal mun ma mi papa noo ko xamee man ni ko jullit du xalaat lu ñaaw digganteem ak boroomam dangay am yaqin bu wér ni sa diggante ak sa borom da nga koy ñaan li nga bëgg nga am njort lu rafet ni bu waxtu wa jotee di nga at mi di nga mën a am vacance bi nga bëgg nga dem ma ni ko parce que ñaar rek lañ la sant nga jàng xam li nga def boo paree nga ñaan yàlla jeex na li ci des doomu aadama sañu di calculer luy xewi ëllëg yàlla nee na laa yaalamul xayba illa allah ma rek maa xam ëllëg lay xew buleen leen ñaaw njort nii lay gis nga xawaatir yi lu ko Seydi Xaaj Malik waxee euh, ca ca ca falaa ba bi jaahi ne e, xawaatir yi bi jaahi ne bi lu mu waxoon ah noonu nga ma koy waxee ok أقمار بأقمار بدر يا إلهي وسيدي ملئ العلا وبالملئ العلا وبالملئ العلا كشفا كل غمة فيه sëriñ sama sëriñ xam nga lan la def foofu est-ce que fa yaa rabbana stif ilayka xawaatiri bi jaahi nabiyin lil bariyati rahmati mokkal nga li ci sama sëriñ teg ca ca tadyil ba mokkal nga tadyil bi Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour waaw sama sëriñ ñoo ko def ci maamam moo ko defal tadil Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiallahu anhu moo xëy benn bés rekk ni dafa gént gi cheikh Cheikhuna Tidiane Chérif mu ni ko nanga nga ñëw fekk si ma Maroc sëriñ bi xëy rek jubal aéroport ni guddi guddi Maroc ñu ni ko foog nga amu ni sama nekku ci ñëw naa ba aéroport ni may def ba dem yow seen loxo la nekk yéen a ko xam mais man guddi guddi dem rek ñu fexe ba mu dem buur bi boole kook ay kàng ak ay kilifa ñu ñëw jël si ko aéroport mu dalal ko ca Rabat yóbbu ko keroog ba ñu dem fees muy ziyaare ji guddi altine la fa dem ba muy demee ba àggal ba muy dem xasida bii di fala budda bi la def tadyil ndokkeel ci maamam fu maamam teg xasida mu teg fa xasida fu mu teg bayit mu teg fa bayit ba xasida bi jeex wa ma dayalal nadman li di fala budda min shakwa ila llahi kurbati moom la jeexale kii ba defe naa yunaziuni la ko commencé woon moom mooy tàmbali bi maa ngi fàttaliku Cheikh Seyd Mouhamadou Mansour boobu mi ngi ci xaal yu méttee métti tàngoor woo xam ni mu ni mën nañ ànd maa ngi fàttaliku puut ca tooleem yi ca mànko xam nga moom dafa barte dafa gaaw mun ma wutal big ak këyit lu ma dikkal ci sama xel ci xasida ma wax la ko nga bind laa ilaha illa allah waa te du dellu gannaaw déedéet doo ko laaj du dellu gannaaw loo wax mukk xamu ko mu nga day wax ngay bind rek fala budda min shakwa ilallahi kun mu naan fala budda min shakwa ilallahi kun xool nga naan bala ngay wax benn bi moom ma nga ca juróomi bayit ya te la yaa ngi bind bu ko bul tëb de nga ne ko waaw mu jig bu nee falaa ma bind falaa mu àggalee ba commencement bayit yi rek foofu laay jël di ko topp di ko topp ba mu dem ba xam ni affaire bi mu ngi bëgg a ëpp nag mun ma saay yaa ngi naan maa ngi bind rek ma xool li nga bind ma ne ko li ma bind kay boo ko xoolee dara nga ci du gis te nga ni ma yaa ngi bind ma ne ko ah, dama koy jam dama koy jam rek moom koy laaj ma <laughs> ma lay commencer nga àggale ah xasida bi mi ngoog xarixa bi booba xarixa bi mooy dikk noonu maam sidi xaaj maa yi dafa ni fa yaa rabbana asrif ilayka xawaatir yi bi jaahi nabiyin lil bariyati rahmati ah yàlla maa ngi lay ñaan ci barke sang sang yi samay xawaatir samay samay xalaat yoo xam ni xalaatuwul yàlla nag moo ko soppil parce que toog di rêver di xalaat loo xam ni kenn xalaat loowu la ko dafa bare da xëy war a génn xalaat téye la ba la nga waroon def doo ko mën a gaaw a defi wala mu soppi sa defin ndekete dañ ciy ñaanlu kenn mënu ko dindi te ñaanlu woo ci déedéet gisoo keroog maa ngi wax gaa yi ma ni leen yàlla ku yéeme la boo gisee li mu wax yépp démb maa ngi koy wax ne illa man ata allaha bi qalbin salimin ay bi salimil qalbi yàlla nee na ku ma indil xol bu sell ma taataan defal la ci nga taataan ma defal la ci ñu ne ah mu ni parce que jigéen bu mën a togg du toggu ñamam ba mu set ba mu rafet ba neex mu jël ndab lu taq di ko ci def yàlla nee na duma boobu gis nga yàlla xal bu la wax foofu mu ni alaa bi dikri wa tatma inna qulubuhum bi dikrillaahi alaa bi dikrillaahi tatma inna al ba tey xal ba lay jëfandikoo foofu waaye gis nga bi mu invité yonent bi sallallahu alayhi wa mu dem ca kaw li sama bàyyi daan wax ne service camarade sa camarade nga koy defal service camarade sa camarade xam nga lu tax yontu yàlla Moussa dafa ñaanoon yàlla dama laa bëgg gis xam nga lu ko yàlla wax doo ma gis ci àdduna est-ce que xam nga ni kenn gisul yàlla mukk ci àdduna ku la ni mas naa ko gis day naxe day naxe yàlla kenn rek moo ko mas a gis muy Seydina Muhammad bu dul moom kenn mësu koo gis kenn du jibril du malaaka du jinne du nit du kenn ku la ni gis naa yàlla ne ko dangay naxe wala danga doon sareer a neex kenn rek Seydi Hajji Maalik nee na am na ay ñaata yoon fanweeri yoon du du jëlin la waxoon ستر المنام kookoy illallah loolu yëfu jàmbur la de eeru jàmbur la de nubuwati ajma ndeysaan xañ maali nee na fanweeri yoon ak ñett jëlin jiim ñett la laam trente la muy trente trois fois ci la yonent bi doon gént di gés yàlla di àgg ci yàlla loolu 33 fois def na ko di ko gént di xalam pour mën a gis yàlla di ko di ko di ko gént di ko gis waaye face à nag wan najmi maa dalla saaxibukum wa maa yantiqu in huwa illa waxyun allamahu shadidul du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa danaa fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa maa kadaba alfuaadu maa raa afatumaarunahu ala maa yara wa laqad ra'aahu bil ufuqil mubin wa maa huwa ala alghaybi ak lan ah laqad raa min ayaati rabbihil ma kadaba alfuaadu ma raa ma zaaqa albasaru laqad raa min ayaati rabbihi alkubra ma zaaqa albasaru wa ma taxa mukalliman bi jariirin mukalliman bi jariirin عذاب yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli am na ko waxoon yonent la moo ne woon yàlla rabbi shrah li sadri waxu ko woon yonent bi moom fekk ko ci dañ ko ne alam nashrah laka sadraka wala déet pour wax la service camarade ni mu doy waar yonent bi yont yàlla Moussa ni yàlla dama laa bëgg gis mu ni ko lan teree nii doo gis lan xarfu tabiid la bi maanaa abadan doo ma gis ci àdduna walakin undur ilal jabali xoolal ci doj bi nga taxaw lan la ko jëkk a wax faxlaa na alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa simil say daal fi nga taxaw dafa sell kenn du fa sol daal ci suuf mu simmi ay dàllam dama laa bëgg gis mu ni ko arini daa mu ni ko dooma gis walakin undur ilal jabari xoolal ci doj fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraani boo toogee tuuti di nga gis lu bokk ci man mu toog tuuti lumière feeñu ko mu xëm daanu ci suuf dama bëgg nga dégg étape par étape bu jëkk bi mooy simmil say dàll fi nga taxaw dafa sell kenn du fi sol daal mooy benn ñaareel ba dama laa bëgg a gis mu ni ko man doo a gis ñetteel ba mu ni ko xaaral dinga gis lu bokk ci man lumière feeñu ko mu xëm rasulullahi tëdd ba une heure matin naa jibril ñëw ànd ak mikail ak azrafil ak azrail kenn ku ci nekk juróom-ñaar fukki junni malaayika ñoo la ñoo la ñoo la gunge ñu jël alburaax dikk fekk rasulullahi ci baytu ummahani mu tëdd dina la bëgg ak booba aïcha mi ngi tëdd ak moom yonent bi jóge na fa ba dem ci kaw ba dellu si te aïcha xamul yonent bi jóge na fa dem ci kaw dellu si waat mu ñëw ni Seydina Jibril lu xew baa du saa dafa taxaw mu ni ko déedéet saa taxawagul lu xew mu ni ko sa boroom a soxla moo la invité ngan ku yàlla soxla wol la boppam nga ne lu may doy Seydina Muhammad ni ko lu may doy mu ni ko nee na wala saw fa yu'tika rabbuka fatarda nga ñëw mu jox la ba nga doyal ba nga kontaan mu ni idan laa arda wa waaxidun min ummati fi nu may kontaanee bu ma yëgee nii man kenn ci sama xeet nan naa dugg safara nan laay kontaanete idan laa arda wa waxidun min ummati fi naar parce que dafa xëpp xëppal bët ya te demagul kat mu ngi teg condition te yàllaa ko wongan mu am fanweeri yoon ak ñett di ko gént ñu ni ko li nga doon gént bëccëg yëf yaa ngi mu mu tiitaru mu tiitaru nag waaw parce que sam cheikh radiallahu anhu dafa am suñu benn nijaay bu neexoon dëkk Tiwaawan di ko wax nijaay Lamine Kunta dafa ni sam pap cheikh bés sàngam di nga ñëw xawma Tiwaawan walla am na lu xewoon mu ne ko maa ngi lay ñaan dinaa ci ñëw <coughs> mu ne ko waaw mu ne ko mais boo toogee ba ñëpp toog woolu ma rek même boo ma dee saaga sax woolu ma ba ma ñëw rek xam naa Samba Cheikh ñëw di waxtaan Lamine yaakaar ni Serigne Cheikh daf ko fàtte mu ngi def ay manière ak lu ne léeg-léeg mu jékki-jékki dal di jóg defaruwaat taxaw taxawlu Samba Cheikh continué waxtaanam rek bàyyi ko ba mu toog ba fàtte mu ni ana Lamine Kunte ñu naan Lamine Kunte Lamine Kunte nee na ma dégg ko nag di làqatu làqatulu pour bëgg affaire bi gën <laughs> ana fu Lamine Kunte ana Lamine Kunta Lamine la ñuy wër Lamine Kunta mu jékki-jékki ne eh wax nga de bërët daal ñaar may leen ko may leen ko ñëw mu ni ko ndax ma saaga la <laughs> ni ko si Malick lu la neex waxal mu tiitaru mais gis nga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni yàlla benn xeet sama xeet benn nit boo ci nar dugal safara fekk booba assurance la ko jox mais assurance simple yenent bi ni moom assurance tout risque la bëgg ci xeetam ah mu defal ko assurance tout risque mu soog a jóg mu ni ko alburaax a nii mu yéeg ci alburaax ànd ak moom jibril ca kanam mikaayil ca ndeyjoor asrafil ca càmmooñ azrail ca gannaaw kenn ku ci nekk juróom-ñaar fukki junni malaayika ñoo ànd ak moom ñu escorté ko mu jaar raf-raf sarifu laqlaam baytul maqdis gàngu dëgg rëkk mu daldi jaar mu dekkal ñaar fukki junni yonent ak ñeent mu julleel mu jiite leen ñaari ràkk départ ak ñoom wa taqaddamta li salaati fasalaw kulluhum muqtadin wa antal imaamu dal di jaar ci bëtt asamaanu juróom-benn asamaanu juróom-ñaar foofa la rombe yontu yàlla Moussa keroog la safaa witar xew waaw safaa witar keroog la xew dafa yomb dafa romb yontu yàlla Moussa mu téye ko mu nuyoo teg moom téye ko ni ko foo jëm mu ne ko sama boroom moo ma soxla mu ne ko maa ngi lay ñaan bëggoon naa koo gis lool aw ma chance mu ne woon duma ko gis ma bëgg boo demee ba palaas ba nga la rikk waay jullil ma fa benn ràkka fàttalikoo ma ko rek muy sama souvenir rasulaay ni cëpp fàttaliku lañ ko la ko yont yàlla Moussa waxoon mu daal di jóg rek kàbbar julli benn rakka xelam dem ci boppam ni man duma ñàkk fay dama nit bu ma julli lee Moussa benn damay julli sam bopp mu daal di julli ñaari rakk sëlmal yàlla ni ko benn pour man muy wiitar moo tax wiitar nekk su su mu ëkkat <laughs> macha allah loolu keroog la safa witar am loolu moo tax képp ku jàpp tariqa cheikh amuloo droit fat witar witar ak ñaari ràkka yi nga xam ni bu ñu jullee timis ba pare moom nga cay teg amuloo droit faat moo tax boo ko faatee ci timis juróom fukki salaatul fatiha nga koy remplacer julli timis ba pare te tegoo ci ñaari ràkka te nga jël tariqa cheikh juróom fukki salaatul fatiha nga koy remplacer boo jëlee werd ak boo jëlul werd yépp boo soppee cheikh rek yaa nga ca waaw wiitar boo ko faatee ñetti jawhara nga koy remplacer parce que wiitar sunnas mu akkat la xam ngeen sunnas mu akkat mooy sunna boo xam ni moo gën a dëgër beneen sunna bi te àggul ci farata mu wax sunnas mu akkat parce que yàllaa ko digle yële sunna la simple mais bii nag sunna bu dëgër la parce que ñaar yële benn bi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa benn yont yàlla muusa la muy shafa al ñëw nekk sunna su mu akkat mu ñëw gis action loolu maa ngi ko gëj gis te ba ñuy football mooy sur léegi nag loolu yow laa koy wax nii nii football ba mu yàgg nga nii nii mooy stopé leen bal bi yéen nga yow laay def nii stopeel ma sa kaas yi ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi mooy benn xel benn xol yàlla defu ci ñaari xel te xel du jàpp ñaar yonent yàlla muhammad mazaaxal basar wa ma taxa mu agsi ànd ak Seydina Jibril ak xoolal équipe bi mu àndaloon yépp kenn ku ci nekk fa sa mission yam fa nga yem ba mu des Seydina Jibril mu ànd ak moom ba am fu mu yem mu ni ko sang bi maa ngi lay tàggu maa ngi ñaan boo demee ci sang ba nanga ma fa defal ñaan nanga ma fa defal lii nang ma fa defal lee mu ni ko mais man damay bëgg a jommi wala mu ni ko yow yaa ma jël si di ma yóbbu ca yàlla ñu agsi ba fii nga ni fi ngay yem mu ni ko bu may continuer di ruy wa ma min naa lahu illa wa bu may continuer rek damay ruy mu ni ko ah waa naka la xarit di àndeek xaritam ba dem ba mu yàgg mu nar koo bàyyi muy wét mu ni ko mënumaa continuer fii mënuma fee paase bu ma fii paase musiba fii la sama mission yam fi yonent bi taxaw di xool nan lay naa Jibril jékki-jékki rek ñu nangu Seydina Jibril ci moom protocole daf koy def des fois protocole daf koy def mu jékki-jékki rek am lu ni cas rasulullahi départ ak moom mu mel ni genre ascenseur muy bañ yonent bi tiit di jaaxle mu indil ko baatu Seydina Abou Bakar mu di ko wéttali di ko gunge muy dégg baat bi di ko gunge ba agsi ci kanamu borom bi taxiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu aleyka ayuha nabi mu dégg baat ba wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihin bunt bi ni ràpp ubbeeku mu jàkkaarloog ku tedd ki mu dem bay bëgg simi dàllam yàlla ni ko xuusal ak say dàll léegi dama bëgg a xool yi ma leen doon wax sànq ak yi ngeen di dégg ñaata façon moo fi nekk gum waxoon naa leen ni dama laa bëgg gis mu ni ko doo ma mën a gis kii moom ñëw na gis na ko jàkkaarloo ak moom ñaareel ba mu ni ko simmil say dàll fi nga nekk dafa sell kenn du fa sol daal ci suuf moom mu yéeg ba ca xadratul yi ca kaw fa yàlla nekk muy simmi dàll mu ne ko su xuusal ak say dàll walla déet lumière a ko feeñu lumière mu xam ni dàll yonent bi moom mazaaxal basar wa mataaxa mu jàkkaarloog moom te yëngatu rafet لصاحبي خاتم خاتم الأنبياء فمنو bi Seydina Muhammad kenn mënu koo fay leen dara de yéen seen affaire bi dafa ala daaw mi ha laa ilaha illallah gis nga ñu baax ñépp seeni wax ñoo niroo moo tax gis nga ñoom dañoo muus xoolal sonn bi ñu xamee ni ndekete jaamu lu mu metti metti am na lu gën a gaaw yóbbu nit ci yàlla mooy sopp yonent bi <laughs> say say man gàmmuma de Cheikh Hadji Mansour mahabbatuhu yumnun cheikhul qawmi bàyyi sëñ Babacar Mansour ak soxna Faat Si Mansour inspecteur u tariqa cheikh cinquante huit ans la dund boo ko xoolee dafa ne am na quatre-vingt-dix ans Cheikh Alxaaji Mansour ñaari kurus la daan werde loxo lay joor ak loxo càmmoñ nee na sopp yonent bi xam na ni ci la lépp nekk mu jël léppam jox ko rasulullahi danga ma bëgg gàmmuloo waaye dama lànk naa de <laughs> sam lank naa maama koy wax li ma metti rek mooy dangay wax li sama maam yi wax mais waxoo li sama sëriñ wax maa ngi sama gayit dama la see yaram tàng na di mani <laughs> fu ma yemoon saam fi mu doon jaxasoo nga de

ala qawmi uhaddithu illa wa anta bayna jullaas wa ma masruran wum illa wa dik wa ma yàlla ñu yàlla fayal mag ñi lool rek dañu doon barkeeloo pour wax la ni yonent bi salaay salaam sopp ko moom ci la lépp nekk moo tax mag ñi jël seen lépp jóor ko ci rasulullahi soxna yéen a ngi dégg lu ma wax ñoo génn leen ci bàyyi leen ma ak ñoom nag génn leen ci de ñoom laa bëgg a waxtaanal fi mu nii euh, ñu ngi tëj suñu kàddu ñu ngi tëj suñu kàddu ci gannaaw bi ñu leen nammalikoo te ñaan yàlla mbas mi fi jaaroon ba téye lu ni mel ak lu moom ak xeetam yàlla bu mu fi amati di leen indi nuyoo xalifa bi sëñ man Mansour ak cantam ci yéen ñépp nag sénégalais yépp yi nekk fii mu wax ma ne Habib boo demee nag ma santal waa Argentine ak waa Brésil ndax bi ma yëkkatee jumaay sa maam ji nga xam ni moom moo ko fi sampaloon yàlla say maam ak say wayjur nekkoon ci ba jóge fi ma jël ko bi ma ko yëkkatee bëgg koo defaraat kenn jiituwu leen ci ñoom waa Argentine yooyu lu ne def ngeen ko ci taxawaay bu ne def ngeen ko ci yàlla yàlla fay leen sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm la ma waxoon démb nag laay waxaat tey foofu laay tëje sama kàddu waxoon naa leen ni ñëwuma fi pour gàmmu ñëwuma fi pour gàmm ñëwuma fi pour conférence ñëwuma fi pour tàkkusaan coow li li muy bare bari li affaire bii neex-neex sànq ba tey dégluwu leen loolu am na lu ngeen di xaar bu fekkee amul rek bu kenn boo fekkee am na nag yëkkati leen seen loxo ma xool ma ni yéene ji maa ngi xam nga lu ma indi wal quraanil hakim dama ni ca senegaal laa jóge alxemes guddi àjjuma fa laa jóge dem aéroport gannaaw bi ma waxee ak sëñ Babacar Mansour xalifa bi direkt ci Seydil Hadj Malick laa dem poñee ko mu validé ma dem ci sëñ Babacar si mu validé ma ñëw ci sama sëriñ Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour ñu validé xam nga lu ma fa defoon dama fa jàmb dama fa cocktailé sama cocktail sama cocktail laa fa jàmb yëg ni fi ma jëm si soxla bu ma fi mas a rek am na bu ko bu taxaw walla déet ma yëg ni nekkete am na ñu dugal nationalité te génnagul am na ñoo xam ne sax mënaguñoo teg baaraam ak këyit yu ñu war a renouveler ak ñu bëgg a dem Sénégal te mënaguñoo dem ak xaalis ak fañ leen di tereg fañ leen di dàqeeg ak ak ak ak ma rekk te loolu yépp kook cocktail ko bëgg leen koo dóor rek daal di dellu wallahi alazim lu coow li bare bare loolu ma fi indi xoolal leneen indiwuma yéen moom ay gàmmoog màggala ak xasaay yooyu dégg ngeen ko bay bëgg dee xam ngeen lu ngeen déggul këtt ni jonn te mooy tati tati tey tati tati laa indi direct bu ma ñaanee tey ma dem te gisuleen ko bu ëllëgee ku leen song ni leen seen bés ba Habiba ngi ñëw lànk leen barke Alaaji Malik wax naa leen fii sànq ni taw waame lay doon neex tooy naqari tooy xaw ma ku génnul sax di nga tooy faf dama ni dama ni sama baay nee na boo jëlee matt mu wow nga sotti ca essence jël almet teg ca nu muy def mu ni jëppët ja du ngóor a almet mbaaxu matt la déggoo ma de du njàmbaaru almet bu almet defee ne njàmbaaram rek ndax na boppam boo jëlee matt mu tooy xepp sotti ca barigo essence du boo ca tegoon téeméeri almet du tàkk du raf poñaxi tey taal ngàññi nag poñaxit mooy taal ngàññi seen soxla yu bari yii nga xam ni maa ngi nii jàkkaarloog moom bu ci nekk jarul wax wax naa leen ni Cheikh Seyd Mouhamadou Mansour moo ma ne woon doom boo amee sab sëriñ te bala mu laa xamal dara wax la nga wax ko sa bopp waccal tanewu la sëriñ danga ko jub mu xam li ci yow te doog ko wax tanfailul kainaati lil waliyi maan bi idni xaaliqina xaqan kama faaw waaw moo ko waxoon Cheikh Seyd Aboubacar radiallahu anhu moo ni woon baayam tanfailul kainaati lil waliyi ma an bi idni xaaliqina ko ma faw nee na boo bindee lettre sëñ Babacar Sy Babacar Sy di jàng lettre bi nee bu fekkee ni am na lu dul dëgg ci lettre bi écriture bi bind bi day yëngu la ji lay dëgg ni tekk ba mu xam ne lii dëgg la lii du dëgg ku ko xam ci kayit war nga ko mën a xam ci xol wala déet naka lañuy ñuy mën gëmee koo xam ni gëmul yàlla gëmul yonent bi defalul yàlla dara mu mën a toog walla ba nga ñëw mu futti la nga feebar nga ñëw mu ni la futteekul mu tëral la simmeekul nga simmeeku mu lay palpe loxoom di dugg fu nekk toogal nga toog xulil sa bët ngay xulil sa bët tàllalal sa làmmiñ ngay tàllal sa làmmiñ gëmul yàlla gëmul yonent bi te lu mu la wax nga ni moo fi ne nga ñëw mu bind la as kayit ni la jaaral fii ci ordonnance bi nga daw loo mën nga def ko ca te gëmul yàlla di as ni yow di sa moroomu nawle futteeku la ba nga set mu lay buttañeeg di la wëlbati danaa la wëlbati ko nit yàlla mënu ko waaye mais nañ bàyyi jaaxal da ngay toog fii sa crédit dagg wala déet damay wax ni ñaar war naa tax nit ku nekk bàyyi xel sa diggante ak sa boroom ñaar boo soxlaa ku la Wave wala ku la Orange bu ñu koy Orange di nga ko gis da jékki-jékki rek mu sone message agsi <laughs> sam sam da mooy ah <laughs> waaw waaw mhm. Mhm. Mhm. day daal di kàbbar eh, mooy imaam loolu de xanaa mooy imaam imaam ba sët yi jëndaloon téléphone portable te mu koy soog a yor xamul luy portable mu yóbbaale ko nag ci jàkka ji ñu li xaamal ko rek mu kàbbar di julli ba war a sëlma rek téléphone bi ni kar mu gaawoon ak a bari ci gaañi nag <laughs> téléphone li muy def garaaw na xam nga bi ma ci gën a metti mooy léegi nit ñi dañ cee nekk nekk nekk ba nga xam ne léegi bu ñuy jaamu yàlla sax dootuñu ko tal ndax téléphone mais sëñ bi li gën a garaaw du loolu dangay teg sa téléphone nii ni allahu akbar mu sone nga ni nii allahu akbar mooy yaa ngi koy wane ko damay julli lépp ci biir julli gi <laughs> bu la ñorul nag dana allahu akbar daal ni ko nii mooy effacé nga ko cest à léegi nit ñi mënuñoo julli mukk ba teewlu lépp lu ñuy def ña ngi ko boole li ma gis nga maa leen di wax sànq dafa am benn waay boo xam ne dafa génn àdduna yàlla yónni malaaka yi nii laaj leen ko bala ngeen a def dara ci moom gis nga yàlla ku mu màndu la moo la gën a xam sa lépp waaye bala laa duma laaj la bala laa teral laaj la mu ni laajal leen ma waa ji ñaata at la dund ñu laaj ko mu dund téeméeri at ñu ne ko loo mas a def ci sa téeméeri at yi mu ni sama ñaar fukki at yépp ci ndaw laa ko paase waaye am naa ñaar fukki at yoo xam ni mosuma koo nelaw guddi dama koy taxaw di ko naafi la yàlla ni ko nanguwuma ko mu ni am naa ñaar fukki at yoo xam ne mosuma koo dog dama koy woor mu ni nanguwuma ko am naa ñaar fukki at yoo xam ni dama koy aj màkk masuma koo manqué mu ni nanguwuma am naa ñaar fukki at yoo xam ni mosuma koo manqué ci asaka mu ni nanguwuma ko lu mu desee jeex na tàkk malaakam yàlla nu ñuy def mu ni dinaa ko jéggal ndax lenn dafa am benn bés mu nekk ak ay xaritam ñu nekk ci waxtaan bu metti grand place bu metti mu jékki-jékki rek fitam rëcc mu tiit wacc fa mbooloo ma rek daw dem ba ci ginnaaw néegam di natt di xool ndax tàkkusaan ji baa paasewul te mu nekk ci biir muy natt tàkkusaan ji ndax jot na wala jotu nee na natt boobu mu doon natt rek laa ko yóbbu aljana yont yàlla Moussa dafay rab dafay sàmmu ay bëy dafay sàmm ay bëy ñëw ba ci benn àll boo xam ne ndekete àll bi xur yépp ay till la ak till ni mu bëggee bëy mu dégg till yi di sab mu yàlla fi ma agsee nii gëmmentu naa ba mënatumaa jéggi benn tànk te maa ngi bëgg a nelaw te dégg naa till yi di sab te till du jaarale yoon bëy maa ngi lay ñaan sama bëy yii même bu ci till yi dee lekkit yàlla bu ñu lekk lépp man nag damay nelaw te yow doo nelaw laa taxuduhu sinatun wala naw daldi tëdd rek départ nelaw yi fëkk ko mu nelaw nelaw yu metti tiite ci nelaw ci fajar gi di xool ñëw di yoot di xool ñaata bëy moo des kii mu ñëw fekk benn tilib bu mag yor benn yat di sàmm bëy yi tilib bi agsi mu agsi rek tilib bi daal di sànni yet bi daal di départ dem mu ñëw xool bëy yi fi mu leen tegoon dara manqué wu fa benn demul benn kiwul mu ni yàlla man de jaaxle naa nag man de waxuma ñàkk lekk till yi bëy yi waaye am maa nit till bëgge bëy nag taxaw di sàmm bëy yi nag looloo mooy sama problème mu ni kun lii kama urit ak kun lakk kama turit man yàlla ku def ni ko bëggee ma defal la ni nga ko bëggee ajjuma dafa jot Modou Ba dend ak Mortala ñu diggaloo aw tool xanaa yéen ay wolof ngeen xam ngeen diggaloo ah est-ce que diggaloo yéen boroom rasta yi xam ngeen ko gay daal nee na ni la ñuy tiitale kii ak ñëw mën a kii nag fi mu toll nii lii la ñuy semee argentin yi ñu ngi nag daal di waaye di ngeen fi fekk ay ñoom Messi ngeen xam ne ñoom dañoo rasta ba yow nag ku la ci dàq semaine ak nga ni kii borom rasta yi bala nga leen ak kii rek nga mere leen rek nga gis leen aéroport nag bu ñu jógee fii nag ba xam ni xam nga fii day suur ndaanaan <laughs> wala déet <laughs> dëkk bi day suur ndaanaan de am sama benn xarit bu ma romb ca Paris laay ma gis ko muy bëmax lu ne mu dugg ca ma xool ma ni waay kii du sama waaj yi ndeysaan Serigne Cheikh sama mag 94 bi ma jëkkee dem États-Unis dama dugg ak moom ci oto bi mu may wëral booba moom Serigne Cheikh mi ngi États-Unis ma dem seeti ko nag ñu ànd di doxantu ji maag moom ak bay di ñeneen ñu dem nag ñuy wër mu naan ma fii la Sénégal yi de fii ma gis nag benn waay boo xam ni dafa bari woon tiitër bari tiitër ba kenn mësula gis mel noonu bu la rombee di la nuyu sax daanaka day mel na boroom rasta yi loo gars yi bés bu la yàlla maa bëggoon rek ñii nii vacances jot rek ba nga gisee ñuy bondé bu ñu wàccee aéroport laa ila da nga naan du ñii laay lalandool ci kaaye yi ci <laughs> waaw ma ñëw rekk ma gis benn waay ma nga takk rajo bi nag ma nga ca njaay ma nag lal nag di tàccu di def yëf ma ni sëñ Cheikh ndeysaan mu ni ma ma ni ko mais kii ak niroog diw mun ma diw la ma ni ko jëj ñeme wala nekk moom ma ni ko noonu kii foog ma jege ko sëñ sax ne ma saa itam bàyyil jàmbur nag ma ni ko noonu mun ma liyee fi nekk de ma ni baax na sawaay booba jamono si mois lañ leen di may façon yooyu ñu ñëw vacances nag la ñu dajalee Amérique yépp ci lay ñëw nag def ca poos ba ba mu fees yore oto yooyu dégg nga ma dajeek moom booba pâtisserie Médina mi ngi xumb <laughs> mën ni tëll pâtisserie Médina bu maa ngi dëkk immeuble Kébé <laughs> ni tëll rek <laughs> sabula maa ngi dëkkoon booba Mamel mën ni tëll rek waa jaa ngi sañ sa yëfu américain yooyu takk fii allo ma ni ko eh xamul Habib Sy man eh xam nga lu ma la yëgal jox ma ñaari loxo <laughs> te ni ma sang bi wala gis nga ma fonton ah. man ma jógee barki dem New York man ma ne ko ma gis la nga naan ma ay kii xam nga lu ma la yëgal <coughs> mu ne ma alors ma ne ko New York gis naa la fa nga lal di jaay gis fekk naa la fa waaye mu changé discours nag commencé waxtaan waxtaan bu normal ma moo ci gën de waaye sama gaañ yi ay waajile ak ka ñoo mën affaire bi di ngeen xam ni ñoom messe ngi feek ñoom kii nuñ tudd ah naka Iberia Di akan léegi damay laaj ku wàññi ci julli yokk ci julli boole wàññeek yokk looy sujjóot dégg ma ma qabla wala baxda bu leen yàlla jàppee waat naa ko ci alaaj Malik ku ci jaamuwul yàlla yàlla dina fudd sa ndigg luy ñaan jaamu ji leen yàlla ngeen leen ñaan e nañu na ngeen gën a góorgóorlu seen diggante ak seen borom waxoon naa leen ko démb man mënuma waxtaan ba mu jeex te waxuma leen ci wàllu diine kooku mënuma ko parce que bokkul ci sama sama slogan bokkul ci ci man kooku du man parce que dama gëm ni nit li koy dimbale dëkk mooy diineem maa ngi jéggalu sama gaa yi ma doon takki ne léegi nag <laughs> tooñ naa leen fi ah mais nag gis nga nit ku nekk ak sa style ñoom seen style la tabaarakallahu ndax noonu la ñuy incarner seen seen dund mais jamono la des na ci kanam bu affaire yi doxee ba yëf yi daal di takkarnaase ba affaire dal di am yëpp dañuy xëbal argentin yi di leen tiital di leen won naaw ah, ñu waaw kay nax leen jël li ñu yor ni tir daw dem seen yoon dem Sénégal indi ko nag ñuy noos na ngeen góorlu ci seen diine bu leen bokk ci jamono bi léegi ñiy fëgg est-ce que seetlu ngeen leen man lu ma seetlu la de xaw ma ndax seetlu ngeen ko la de benn baat boo xam ne daan ngeen ko dégg bu yàgg xale bi dafa dooj dooj dooj kañ ngeen ko gëj dégg yàgg na de ah dooj dëggatoo ko de xam nga lu da bu jëkk ba xale yi dañoo bëggoon a nekk mag léegi nag mag ñi ñoo bëgg a nekk xale <laughs> waaw xoolal Sénégal yëpp ngay gis léegi ñëpp ay jeunes lañu ñun ñëpp kenn ku nekk koo wax mun la jeune ñun jeunes yi ñëpp ñun jeunes yi nee nañu ñoom Ousmane Sonko sax ay jeunes la leen fal te ay maamu yàlla ay ponkalum jëm ñoo leen fal ñu ne ay jeunes Sénégal koo gis mu la ñun jeunes yi te kat képp benn waay damay gàmmu ca benn place ca bëgguma sax tudd bi nag parce que maa ngi koy bëgg a rey may gàmmu mu mu jël kàddu mu ni ma sëriñ bi dañ la doon ñaan ñun jeunes yi nga ñaanal ñu xaw ma wax a wax ba àggal ma xool waa ji ma ne ko diw yow ñaata soxla nga am mu defal ne dama koy ñaanal ñetteel mu ne ma ñaar <laughs> ak di xaar nga ma ne ko ñetteel ma ne ko ñaata doom nga am mu ne ma yàlla dénk na ma ñeenti bant ma ne ko ponkal mu toll yow taxaw ci diggu pénc mii naan ñun jeunes yi yor ñaari jabar ak ay doom te ku la ni ñetteel nga ni maa ngi ana mag mi kon ana mag ñi loolu moo fi xew de léegi mag ñëpp dañoo bëgg a nekk xale di jeune jeune lu koo wax mu lañu ñu jeune jeunesse bi jeunesse bi te ñi koy wax ñëpp ay mukallaf lañu nu ko borom euh, euh, kii waxe ati sax euh, ibnu ashir ibnu ashir nu mu ko waxee woonati waaye ca at ya tabliir bi chart al aql ma al buluugi bi dame aw xaml aw bi maniin aw bi inbaati shaar aw bi samaani asharatin xawlan dahar waaw wa kullu taklifin bi chart al aql waaw am na e, waaw am na sax am na bayit ba may wër e, tabliiru oustaz oustaz loolu nag maa ngi ñaan fii ngeen nekk waxoon naa leen ko fii ma ni leen woon lu mu metti metti lu ngeen xat-xat boole leen ci yàlla lu mu dëgër dëgër xam nga man fële Brésil joxe naa fa benn secret boo xam ne ku bëgg xaalis mais yéen damay bàyyi ba déwén ma jox leen ko parce que dama koy jaay yoo boobu dama koy jaay boobu moom dama ko maye euh, boobu moom ah non boobu moom neex naqari doo laal loo amul mukk secret boobu déedéet sama bàyyi neewoon na ma boo ko defee ñetti weer ñetti weer nga def secret bi neex naqari amul ma dem te ñëw saa à mooy bëgg nga lii ñaan nga ko rek am nga ko waaye nag boobu moom bàyyi leen ba déwén ma jox leen ko bàyyil ma ñaan rek eh, secret boobu dafa diis ma bàyyi ko fi àttan ngeen ko ah dañ ci jàmm déet dama koy jaay yuu kooku njëgam cher na kooku njëgam cher na de ah baa mën ngeen koo jënd ah kon ma def ko daal te yàlla tax waaj leen képp koo xam ni yaa ngi ci buntu àdduna di wut ngay góor walla jigéen ak koo mën a doon nga am itte nga def ñetti weer yoo xam ni boo amul ngànt doo tàqalikook njàpp doo faat waxtu bu fekkee amoo ngànt nga def ko ñetti weer yu tegaloo boo amee soxla ñaan ko te nanguwul poñe ma déggoo ma de ñetti weer laa wax yoo xam ni doo tàqalikook njàpp bu fekkee amoo ngànt doo faat waxtu bu fekkee amoo ngànt boo amee ngànt ngànt ngànt la mais boo amul ngànt doo faat waxtu doo ñàkk njàpp nga tegale ko ñetti weer ba mu mat mu wóor la ni yow lii def nga ko nga am soxla nga daldi dugg ci ruq julli sa ñaari ràkka ñaan soxla ba te nanguwul poñe ma man kay li ma la lu leer la non non bii bii moom dama leen ko baal ba beneen yoon waaw bii moom dama leen ko dama leen ko jox te yàlla tax waaw sama bàyyi ma ko waxoon na ngeen ko essayé rek ngeen xool te li sama baab wax noonu alquran la de yàllaa ko wax wa man yattaqi llaha yaj'al wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib nuy ñaan nag yàlla nañ fi yàgg ñëw yàgg leen fi fekk góorlu leen ci seen diine góor góorlu leen ci seen diine ñaareel ba bàyyi leen xel waajur ya nekk senegaal su ngeen amee nañ leen dégg bu ngeen amul nañ leen dégg kumpa baaxul te ki la war a dégg bu la déggul musiba am lu ngeen am lu mu tuuti tuuti bu leen ko xepp dee leen jox way jur yi ñu leen di jàppale ndax koo xam ni boo ko joxee mi ngi lay ñaan lul boo ko joxul mi ngi lay ñaan lul ngi génne sarax pour yow ku mu xam ku baax mi ngi naan ko sa ndoom sa sa waaja sa soxna sa sa ndaw sa nelawutuñu bu ngeen dee nelaw ñoom nelawuñu bu ngeen dee lekk ñoom lekkuñu bàyyi leen xel way jur yi ñetteel bi mooy yéen ñi nga xam ne yéen yéen la yàlla boole fii te kenn xamagu ci kañ la bëggante leen te yàlla tax yéenante leen lu baax yéenante jàmm nii ngeen def lu kenn mësul gis lu lu ko dàq am bés waa kër si Sidi Hadj Malick moom ko jël ko tudde ko waa kër Mam Borom Touba tudde leen ko de ñoo li mortal wax na dëgg dafa tombe bés bi tey dañ koy rek jëmmal mais lu ngeen moom kër Seydi Hadji Maalik lu mu moom kër Sëñ Tuubaa ko moom kër Sëñ Tuubaa lu ñu moom maam kër Seydi Hadji ñoo ko moom loolu dund leen ko bu ñu gis nga yi fi xewoon yépp tubaab yee ko fi indi ngir bëggoon ñoo tàqale tubaab yi ñoo fexe woon ba tiijaan yi di jël kurus di ko laxas ci seen baat ak seen loxo pour bëgg ñu xàmmee leen ñu jël ay njël fexe ba jox ko murid yi ñu di ko takk pour ñu mën leen xàmmee mais yooyu xew fi woon danga daan ñëw ci kër ñu teral la ba nga àggal door a xam koo doon ñoom ñoo ñu fexe ba bu ñu duggee ci kër ñu ne ay ah, yow koo doon ak yow nangam nangam déedéet bañ leen ko gis nga fii ku fi yuuxu balaa Tuubaa ñëw ñi nga dëkkal ñoo lay jëkk a wallu balaa Tiwaawan na ñëw ñi nga dëkkal ñoo lay jëkk wallu bëggante leen te yàlla tax bu leen kenn teqale kenn ku ci nekk bi ngay ñëw fii sa morom paasalu la yàllaa leen fi dajale boole leen fi ngeen nekk fii kenn ku ci nekk yàlla bind na ci yow ni di nga ñëw fii kenn mënulaa tere nga ñëw fii li nga war a am fii xoolal bu ñëpp àndandoo woon di la sikkar di ñaan di la ko bañ a yéene te yàlla ni danga koy am par force doole mbaam danga koy am bu la ko ñëpp yéene te yàlla ni doo ko am wallahi alazim doo ko ñam gëm leen yàlla ci loolu ragal leen yàlla ci loolu te ngeen bàyyi soxorante bokk yi wallahi alazim ku tardé soxor moo la tardel lal ci place sa mbokk ni yow ñëw lal te yéenewoo ko lalam musiba la dangeen di wax rek gis nga lii ngeen di wax ci argentin yeeg nañ ñu bàyyi ñu lal ak nañ ñu bàyyi ñu nangam gis nga ñooñu garaawuñu sa maam Seydi Haj Malick bu korite wala tabaski masaana jot boo ñëwee ci moom ni ko góor gi baal ma xàq mu ni sama diggante yéen jaaxaluma seeni diggantee ma jaaxal xamoo ni man argentin yi jaaxaluñu billaahi wallaahi tallaahi barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam jaaxaluñu pour ñu def leen deux voyages benn dem ak dikk lay doon xam nga lan mooy problème bi yéen ñi dëkk ci seen biir te yéenantewu leen lu baax yéenantewu leen jàmm kenn bëggul sa moroom am ku ci nekk yaa ngi xool ñaata nga jaay ñaata la jarle diw moom eh, diw diw moom est-ce que diw sax nekkul ci affaire yi dootuñu la yéene sax li ngay am léegi ñi ngi xool yow ni ngay def ba am ñi ngi la ko yóbbu ci ay ci ay ay détails sa kii boo moytul sunguf si la non lii moom sunguf si la mais kii ñëw fi sawaay an sawaay gis nga ko lal na tey <laughs> sawaay dafa mel ne dafa nekk ci affaire yi de waxu ko kenn waaye kii mi kii ma gis ni ah kii bër kii dem rek la fi ñëw gisoo ko fi toll nii mi ngi def ay conteneur mi ngi def ay nàngam bu gaa yi di jaay fukk muy jaay benn non kii moom am na leneen lu muy def lu mu waxul fekk du dara yàllaa ko séddu lu mu la séddul rek nangulal ko yàlla rek nangul ko ko rek di nga gis client buy ñëw sax te doo ko yéene waa ji billaay bu ca mënee topp dana ci topp yàlla bu mu dégg langue bi te déggoo ko <laughs> la illa sénégalais waxoon naa leen fii neen ñett baaxul iñaan dégg naa léegi gars yi nag di ko dóor bu baax a baax iñaan iñetti iñeñeñ ñi gars yi iñeñeñ ñi baaxul de waxoon naa leen iñaan garaawul nit day yor dara nga soxla ko mu bañ xañ na la ko tey mais bu ëllëgee mën na la ko jox boobu mooy iñaan yow ku iñaan nga demal rek maa leen ñaan sa na yow da iñaan demal demal demal loolu c'est fréquent garaawul mais bi gën a garaaw nag mooy iññati dangay ngay xool nit ki yor dara nga bëgg ko mais iñaane nga koo laaj walla nga àbb ko wala nga ñaan ko nga dem ba mu ronger sa xol mais bi gën a garaaw nag mooy iññañañ ñi yàlla nañ ci yàlla musal iññañañ moom foo fekk boroom dafay ñaq mel na ku daw bay doog a agsi te dawul demul fenn foo fekk boroom xol bi day tàng te kenn xamul lu ko tàngal foo fekk boroom du kontaan iññeñeñ yamu ca foo fekk ku mu mën a doon xolal bu dee góor day ñaaw bu dee jigéen day ñaaw yàlla bu mu doon jigéen bu am iñe ñi ñi xoolal lu mu maquillé wu mu yàqu yàlla bu muy yéykatu si ngoom nag laa ilaha illa allah ñi moom baaxul parce que mooy koo xam ni bu la gisee nga dawal oto sax mu ni danga ko àbbu yéenewu la dara moo tax buleen soxorante ci seen biir laayante leen biir dimbalante gis nga fii kenn mënul dara ku yàlla jàppale rek moo fi nekk yàlla ku mu jàppale rek moo fi nekk te yàlla waxul kenn dara julli yi baax na daayira yi waxoon naa leen ko sanq wax naa leen ko démb fonkaat leen seen daayira yi te di ci dem gaa dee leen ñëw daayira dee leen ñëw daayira dee leen ñëw daayira dee ñëw daayira parce que ñëw daayira baax na trop teew teewe teewal teengal baax na de daayira ak toolayam kon tabaarakallaahu ñi ngi ñaan yàlla yàlla bu mu nekk sunu mujj jataay ak yéen koor gi ñu génn yàlla ñu ko fekkewaat at yu bare lépp luñ ci jaamu yàlla na ko yàlla nangu ñi ngi sant bu baax a baax di bu baax di ndokkeel bu baax eh, yàlla nañ gisantewaat at yu bare te bala ñu gisantewaat yàlla ngeen yokk bu baax yàlla bu ñu gaaw a dee yàlla bu ñu gaaw a dee laa wax de mortala yàlla boo gaaw moor yàlla boo gaaw moor yàlla yàlla taxaw leen man day bég naa lool ci ni ngeen ànde kontaan naa ci lool sawar naa ci lool ci ñëw fi te it bunt kër gaa ngi noonu fi la de na dëgër bu leen ci kenn génne nii rekk la nii rekk la ëtt bi daal na doon diine ji rekk bu bëccëgee yéen ñépp ngeen bokk bu guddi jotee ku mu neex na dugg sab néeg tëdd la ngay fekk sa néeg yow rek yaa ko xam boo ko nettaliwul boo ëllëgee kenn du ko xam walla déet <laughs> cob te mënta paase nettali géntu jàmbur sama xarit ba nekkoon centenaire Pape Si ndeysaan yàlla yàlla yërëm ko gardien daf ko doon bégal ni ko li ma lay wax nag foog sëñ Habib fekk ko laay mu mobiliser ñun ñëpp gardien bi ni ko biig daal li ma fi gént ma ni way nag gardien di gént <laughs> waaye la ma gën a metti rek mu naan ko patron bi daal li ma fi gént waa ji ni ko lu xew te nag pap si ku ragal la woon mu ni ko dama gént benn jaanu ñàngur bu mag bu ñuul mu jub si kër gi de mu ni ko yaa jaan ji dàq naa la <laughs> de de ma ma garde loola ngay nelaw bay gént waxuma ak ngay gént ay jaan moom yow moom abal ma e tabaarakallaahu ñu ziar président sant ko ak équipe bi nga xam ni ñoom itam ñoom la àndal di ko bégit ci initiative bi nga xam ni def nañ ko e, lu yàgg dëgg la di sant nag soxna yu tedd yi di leen ñaanal yàlla tey nag moom neex naqar yi ñi yéen a ma gën a xam tey moom sama ñaan gii pourcentage bi sant la cent mais quatre-vingt-dix-huit yi jigéen ñi laa ko jox deux yi laa leen di may yéen waaw di di bég nag ak di ñaanal yàlla bokk yi nga xam ne ñi ngi woon fii te toxu dem feneen ngir yaakaar ñii ña nga amerig ñii ña nga Angleterre ñii ña nga ci yeneen dëkk yoo xam ni sax xamoo ko waaye fu fi nit nekk rek sunu guddi gi yàlla na ci yàlla boole ma bëgg bala maa ñaan kenn ku nekk joxanteeg sa moroom loxo baaloonteeg moom pàq amin amin amin amin amin waaw ah. naa ko jamil waaw <laughs> jamil jamil suñu doom la jamil fay jamil mbokk mu wër lamin la waaw ah mu waay mu am doom tudde ko ko Mansour mhm. wallahi wallahi dëgg la maa la ko wax dëgg tudde ko sa bopp wallahi ndeysaan xanaa ñu ñaan dafa naa mën nañ ñaan de ah est-ce que dépassé wuñu sax waxtu wi ko yàlla dundal te barkel ko yàlla na ko yàlla jox barke mag ñi